auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim Touba Ca Kanam Nuuru nii ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal ak di ñaan suñu kàddu yi fekk leen si jàmm di ñaan it liggéey bii nga xam ne ñu ngi ko ànd di ko liggéeyal ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba yal nañ ci dajeeg ngërëmam ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ciy dox ay jéego tey ñu ànd ak waa commission des finances ak sous commission gestion des fonds euh, bëgg leen a dëgtal lépp li nga xam ne euh, dugg na ci gafak ak Touba Ca Kanam ci février 2020 ak lépp loo xam ne jot na cee génn su ko defee ñu commencé ko nag d'abord ci waa ci zone nationale bi su ko defee ñu yeggali tamit ci international bi muy waa diaspora bu ci njëkk mooy euh, dëkk bu sell bi Touba jot na 48 millions 73 mille 300 francs ñoo ci jot a dugg ci weeru février 2020 Dakar El Hadj Ndaw 4 millions 159 mille 900 francs Tigo Cash te léegi mu doon Free Money 128 mille 101 francs Daïra Babul Ayadi Agnam 110 mille francs Saint-Louis Rijal Seck ak Ramafal 738 mille francs Kébémer Gora Syll cent mille francs Louga ci njiital Moustapha Bassirou Mbuub un million deux cent soixante-dix-sept mille Mbacké ñu ànd ceeg Aji Dior Gaye Mamma Fall Kumba Ndiaye euh, versé nañ quatre cent vingt-sept mille daaru salaam cuun ñu ànd ci ceeg sëriñ abdu salaam cuun cent cinq mille francs versement yi nga xam ne mooy anonyme ñu nga xam ne jotuñu leen a xam dañu joxe seen barkelu noonu te ñu tuddee ko anonyme un million quatre cent trente deux mille deux mbuur ci njiitalu moor Sourang un million de francs CFA le versé Thiès te Mbaye Sall ànd ceeg mbokku taalibe yi un million trois cent trente mille francs Vélingara ci njiitalu Serigne Mbacke Gueye soixante dix sept mille francs Kaolack ci njiitalu sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo ak Moustapha Touré un million trois cent quinze mille francs fas Boy Pape Fall versé na trois cent dix mille francs Kédougou ci njiitalu Serigne Modou Lo na deux cent quatre-vingt mille francs Goudiri ñu àndi seeg Serigne Dame Ba versé na cinq cent cinquante mille francs Ngunjaan ci njiitalu Modou Thiam versé nañ cent mille francs joial and ñu ànd seeg Serigne Bassirou Thiaw versé na trois cent vingt mille francs Ross Béthio Alioune Ngingue jot naa versé ci weeru février deux vingt deux cent mille francs Kafountine ci njiitul sëriñ Njëmb Cissé versé na cent cinquante cinq mille francs soxna May Mbàkke ca wërëse gi moom tamit ànd cee mbokku taalibe yi versé quatre cent mille francs cey cey soxna Faati Jabaay versé na cinquante mille francs Moussa Sène sëñ Moussa Sène ca Kolda ànd cee mbokku taalibe yi versé nañ trois cent soixante un mille francs ngaay soxna Mati Bey ak soxna ndog Nogay jiite versé nañ cent dix mille francs Fouta seriñ Mouhamadou Fadal Dia versé na cent cinquante mille francs Rosso Sénégal Serigne Modou Sarr versé na cent dix mille francs Serigne Mamadou Diop Tivaouane deux cent soixante dix mille francs ginnaaw loolu am na ay jaayante yoo xam ne ci weeru février bi jot na cee am bu ci njëkk mooy soxna maam xari Mbakke Murtada jaayante na deux millions de francs CFA sëriñ Jili Silla tamit jaayante na cinq cent mille francs euh, Café Touba bi nga xam ne jot nañ ko euh, amalee ca Saam jaayante nañ fa cent trente cinq mille francs et ak Diawara ci njiitalug Serigne Cheikh Anne versé nañ cent dix mille francs Njaga Juuf ca Matam versé na quarante cinq mille francs sëñcu Bambey ñu ànd seet Serigne Khadim ñaa versé na soixante dix mille cent cinquante francs sëriñ Mamadou xari Guèye ca Casamance versé na cent mille francs Talla Kane ca Bokki Jaawe versé na quatre-vingt mille francs Fuuta Xorka Jeere ñu ànd seeg sëriñ Massayer Guèye versé na vingt-cinq mille francs sëriñ moodu fay ca ca ndox versé na cinquante mille francs Jifeer sëriñ Ousmane Ndiaye versé na cent cinquante mille francs Kanel ñu ànd seeg sëriñ Ngañ Ndongo versé na vingt sept mille francs ex externe bancaire ak taxes yi maanaam li nga xam ne banques yi jot nañ ko delloo ci gafek ak Touba ci kanam trois mille cinq cent trente francs la loolu yëpp nag biñ ko boolee lu dugg ci koppar ci gafak ak Touba ci kanam ci biir réew mi 67 millions la 754 mille 276 francs CFA ñu ñëw ci éclairage domestique maanaam ci misaal làmp yi nga xam ne jotoon nañ ko fi indi di ko jox mbokku taalibe yi ñu koy jëfandikoo ci buntu kër yi loolu bañ ko joxee mbokku taalibe yi versement buñ ci def mu ngi toll ci 3 millions 665 mille francs barkeelu yuy jaar ci Touba ci kanam te jëm ci université ba maanaam ñu gën ko tuddee institut islamique ba nga xam ne mu ngi ci université ba versement bi quarante cinq mille francs CFA ci la tool bu ñëwee ci bitim réew ñu commencé ci euh, zone Asie am na ñu fa jot a jaayante lu mel ne ku mel ne sëriñ américain ca Taïwan moom jaayante na trois cent dix mille francs zone Amérique. États-Unis Serigne bu Seck versé na trois millions cinq cent zone Europe Angleterre sëriñ Fallou Diop versé na trois cent vingt cinq mille cinq cent francs Espagne ci njiitalug Serigne Malick Dieng versé nañ neuf cent trente quatre mille cinq cent quatre Italie coordination bu Italie bañ boole luñ verse mu ngi toll ci six millions six cent mille cent soixante cinq ñu ànd seeg sëriñ Abdou Salam Faye versé nañ un million cent soixante mille trois cent quatre-vingt-huit francs France versé nañ vingt mille zéro soixante-douze francs loolu lépp nag buñ ko boolee mu ngi toll ci neuf millions zéro quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt francs zone Afrique Maroc ci njiitalug Serigne Albouri Seck versé nañ deux cent mille francs Serigne Mor Dieng ca Afrique di Sud ànd na mbokku taalibe yi versé sept cent cinquante mille francs Aliou Serigne Aliou Waaj ca Mali versé na huit cent soixante mille francs CFA sëñ Mor Fassa Côte d'Ivoire un million cinq cent mille francs la versé ci mois de février bi sëñ Modou Att Seck ca Guinée Bissau versé na huit cent vingt quatre mille cinq cent francs sëñ Pape Ciss Gabon versé na six cent quarante quatre mille francs Sëriñ Assane Mar ca Togo versé na cent vingt mille deux cent francs Sëriñ Abdoulahat Amar Cap-Vert versé na cinq cent dix sept mille cinq cent francs loolu yëpp buñ ko boolee maanaam. total zone Afrique bi euh, mu ngi tollu ci cinq millions quatre cent seize mille deux cent francs loolu yëpp nag euh, buñ ko boolee total encaissement mois de février bi maanaam lépp li nga xam ne euh, jot naa dugg ci gafak ak Touba ca kanam buñ boolee zone Afrique ak bit biir réew mi biir Sénégal ak lépp xaalis baa ngi tollu ci quatre-vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-seize francs CFA mbokki taalibe yi ñu ñëw ci décaissement yi nga xam ne euh, lépp lu nga xam ne jot nañ ko encaissé tamit at loo xam ne jot nañ war nañ ko dépensé ñu tuddee ko décaissement muy ñu commencé ko ci chantier yi euh, chantier Touba Boborel ci weerum février bi jot nañ fa dépensé deux millions six cent trente mille cent cinquante francs bu ñëwee ci chantier Daaru Xadim foofu jot nañ dépensé trois million neuf cent neuf mille francs chantier université bi foofu jot nañ fa dépensé trois million cent dix mille francs daara yi nga xam ne euh, dañ ko dañ ci sóobu war cee indil euh, war cee war kaa defaraat ay yenn daara yi nga xam ne jot nañ ko tànn biir Touba di ko defaraat euh, Touba ci kanam génn na ci mois de février bi vingt huit millions trois cent cinquante deux mille francs ngir yee salaat daara yi sànce bu kër gol foofu ginnaaw presque lu ci des bareetut Touba ci kanam génn na ci ci mois de février bi def na ci trois cent soixante deux mille quatre cent francs oto Touba ci kanam yi nga xam ne euh, ñoo ngi fi di dem ak dikk lépp loo nga xam ne muy mbiru entretien gasoil bi at lépp li nga xam ne mu nga dem ci oto yi euh, mu ngi toll ci deux millions cent quinze mille cinq cent francs commission massification nga xam ne seeni euh, dépenses yi nga xam ne ñu ngi koy def lu mel ne ay tournée nationale beeg yooyu yëpp mu ngi toll ci un million quatre cent vingt sept mille cinq cent francs matériel yi nga xam ne jot nañ ko jot muy lu mel ne don yi nga xam ne jox nañ ñoog yooyu yëpp xaalis buñ ci frais pour jot ci toll na ci six millions six cent quatre vingt treize mille neuf cent quatre francs salaire yi. ak charge yi nga xam ne luy tuddee charge fixe maanaam loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci weer wi yooyu yëpp mu ngi toll ci quatre million trois cent quarante deux mille cinq cent francs budget de fonctionnement bi nga xam ne ay frais yoo xam ne la dañuy ñëw euh, te duñ ma du mën a xaar lépp buñ ko boolee mu ngi toll ci un million deux cent quatre vingt neuf mille neuf cent francs commission membre lu mel ni carte de membre yi ak reçu yeeg yooyu yëpp jot nañ ci frais ci weer wi février 2020 bi 648 750 francs commission reboisement moom tamit ci weeru février 2020 bi jot nañ ci dépensé cent 119 mille francs euh, ci weeru février bi tamit Euh, matériel bi nga xam ne jot nañ ko jënd kër sañ Touba gi lu mel ne ay aspirateur ay machine à laver nga xam ne moom lañu leen jàppalee bañ ko boolee tamit li nga xam ne jot nañ ko jënd ngir ay bi ay machines yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci bureau bu Dakar ak bureau bu Touba bi fii siège bi euh, loolu lépp mu ngi toll ci 3 millions 594 mille 385 francs buñ ko boolee total décaissement bi février 2020 mu ngi toll ci cinquante huit millions cinq cent quatre vingt mille neuf cent trente neuf francs CFA. jëlee lu jot a dugg ci gafak ak Touba ci kanam génn ci li nga xam ne Touba ci kanam jot naa dépensé xaalis bi mu ngi toll ci trente et cent quatre vingt mille deux cent bu ñu jëlee solde mois de janvier mu toll ci six cent cinquante six millions deux cent cinq mille cinq cent vingt cinq nga doll ci lu des ci dépense bi et gafa ci kanam ci mois de février deux mille vingt six cent quatre vingt sept millions quatre cent mille sept cent trente deux francs moo ci nekk ñu ngi ci sant mbokk taalibe yépp képp ku nga xam ne euh, dugal nga ci ca ñaq def nga ci say jéego ñu ngi ñaan euh, ki nga xam ne moo tax ñu jóg di ko liggéeyal muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul euh, yal nañu ci yal na ko barkeel barkeel liggéey bi jàppale ñun ñëpp ba nga xam ne dañ ci daje ngërëmam sëñ Tuubaa yal na ko yàlla def ci barke Cheikhul Xadim jërë ngeen jëf